dale na jàmm ñoo ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyando yéenekaay gi di réew mi ko di xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall wal na gouvernement bu yees jël Amadou Ba jiital ko mu nekk premier ministre journal bi di réew mi ko di jeex na ci gouvernement bu yees bi am na ci ay ministre yu bees am na ci ñoo xam ne dañu leen a génne am na ñoo xam ne ñoo ngi continuer di doxal maanaam ñoo ngi wëyal journal bi nee na wàllum économie ci réew mi ku ñuy wax la ñu ko dénk waaye tamit ci réew mi ku ñuy wax Amadou Moustapha ñu ko dénk maanaam ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllum économie ak wàllum finance nee na xarañ nañu lool ci wàll wi yéenekaay gi nee na Fatou Diané moom la ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jigéen ñi ak wàllum njaboot gi journal bi nee na Doudou Ka la ñu dénk wàllum transport aérien Pape Sagna Mbaye ku bees la la ñu dénk wàllum napp gi Victorine Ndeye ku la la ñu dénk wàllum microfinance Alioune Sow ku la la ñu dénk wàllum culture Moussa Bokar Thiam la moom la ñu dénk wàllum communication Gallo la moom la ñu dénk wàllum fonction publique Pape Malick Ndour la moom la ñu dénk wàllum jeunesse docteur Annette Seck la moom la ñu dénk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew waay yéen kaay gi di enquête nee na njiitu réew mi di président Macky Sall dafa teg gouvernement boo xam ne nee na gouvernement de combat la maanaam gouvernement boo xam ne dafay taxaw di xeex journal bi di laas nee na xeex bi Amadou Ba moo ko jiite maanaam mooy chef de guerre Amadou Ba mi ñu tabbu def ko njiitu réewum Sénégal def ko premier ministre yéen kaay di la rafet quotidien nee na gouvernement bii nga xamante ni moom la ñu teg am na ay les suuxu la gouvernement bi ñoom dañoo ñëw ne yi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund waaye nag ñoom dañoo mel ni dañoo bëgg gën a lor askanu Sénégal ndax lu ministre ñoo fi nekkoon jamono ji taw yi nañu ko ba yóbbu ko 38 ministre yéen kaay gii de la Tribune nee na njiitu réew mi di président Macky Sall bu ñu jàppee ne maanaam gouvernement bu yees bi dina tax ñun lijjanti wàllum chômage bi ñoo ngi nax suñu bopp te képp koo xam ne gouvernement bu yees bi dina tax sëg dund sopparñi ko dund gi wàññeeku yaa ngi nax su bopp te gouvernement bu yees bi képp koo xam ne jàpp nga ne dinañu yi ci réew mi yaa ngi nax su bopp ñu ko fi tegee li ko tax a jóg mooy fexe lijjanti def seeni dëbal dëbal ba ñetteelu mandat ci bopp réewum Sall te loole waruñu ko ko mën a nangu la yéen kaay gi de la Tribune Bougane Gueye Dany nee na Amadou mii nga xam ne moom la ñu def ministre bu mu leen jaaxala mooy nekk directeur campagne Macky Sall 2024 te nag Mame Mbaye mi nga xamante ni andi nañu ko ak Abdou Karim Fofana dañoo bëgg ñuy jàkkaarloo ak Barthélémy Dias maanaam ci Ndakaaru Victorine Ndeye ak Doudou mi nga xam ne moom la ñu tabb sa diwaanu Ziguinchor dañoo bëgg ñooñee tamit di jàmmarloo Ousmane ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllum collectivité territoriale maanaam ñàkk na ko dindi nañu ko ministre ginnaaw bi ñu ko gàñee ci yi mu ñàkk mairie bu Sangalkam ñu gàñee ko ci élection législative yi ji Omar Gueye ñàkk na lépp maanaam simple la ba tey ci journal bi di Rewmi Quotidien na Abdoulaye Daouda Diallo bokkul ci gouvernement bi Mahmoud Saleh moom tim bokkul ci gouvernement bi dañu leen écarté Amadou Hott génn nañu ko Ndeye Saly Diop Gueye génn nañu ko Sara Iyane Thiam génn na ko Aminata Assome Diatta génn nañu ko Abdou Karim Sall génn nañu ko Maître Malick Sall génn nañu ko ko yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar ñu am na lu toll ci fukk ak ñett ci ministre yoo xam ne dañu leen a dàq journal bi xëy wax ci retouru Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne moom la ñuy dàkkantele maanaam tailleur constitutionnel ki nga xam ne mooy jël constitution bi jël ab siisooma daggal ko Macky Sall ba mu jot ko mu solal ko ko di Ismaïla départu Matar Ba mi ñu génne ministère des sports loolee jaaxal nañu bare bari ak coupe du monde bi nga xam ne mooy wàcca loolee kaala yéen a kaay gii di Walf Fadjri xëy duñu xibaar nan ñu Pape Diop récompensé nañu ko maanaam neexal nañu ko ndax Pape Diop mi nga xam ne moo fekk Macky Sall loolee moo tax Aliou Sow daal di dugg ci gouvernement bi ndax Aliou Sow ak Pape Diop ci élection législative maanaam ñoo àndoona yéen a kaay gii di bés bi xëy duñu xibaar nan ñu Ba impossible cohabitation maanaam ñaar ñii comme xaj ak muus a la turbina nee na Abdoulaye Daouda Diallo ak nga xam ne mooy Amadou Ba ñoom ñaara maanaam dañoo yàgg a giita ngaasa giita ngaasa adversité bi nga xam ne dox na seen diggante ëpp na fanweeri at ak ñaara ñoom ñaar ñëpp ay inspecteur impôt domaine la ña waaye nag ñoom ñaar dañoo yàgg xeex un combat sans merci au sommet de l'état yéene kaay gi di alerte xëy dañu xibara naan ñu Mahmoud Saleh ak Seydou Gueye Macky Sall écarté na leen yéene kaay gi di enquête xëy nag dañu xibara di ñu wax kan mooy Oulimata Sarr la moom miñ dénk wàllum économie waaye tamit bi ñu dénk wàllum finance enquête nee na tamit waajoojee tamit ku xarañ la waaye tamit journal bi nee na docteur Annette Seck mi nga xam ne ab pharmacien la kookee tamit ku xarañ la moom mi ñu dénk nag Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ku social la ku compétente la enquête mooy wax liggéeykat la journal bi nee na liggéey na ci privé lu ëpp ñaar fukki at titulaire d'un en pharmacie en 1990 enquête a dikk na xëy di ñu xibaar di kan mooy docteur Annette Seck waaye tamit di ñu wax kan mooy Oulimata Sarr ak kan tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ci xalima ak Assane Samba nee na Macky a ak gouvernement bii mu tekk niruwul ko xam ne ma ngi jël ay bagage sama maanaam di dema yéen a kaay gi di bés bi ñu koy fekk fa Alassane Seck mi nga xam ne moo jiite Ligue sénégalaise des droits humains nee na Macky Sall jël na ab avocat bu xaraña xaraña na ko lijjantil ma càmbaral ma xoolal ma Karim Wade ak Khalifa Sall nan lañ leen di am yéen a kaay gi di sunu lamb nee na écurie Rock Énergie bu mootuloo deltu nañu ginnaawa ndax lu toll ci 18 am nañu neuf défaite am nañu neuf victoire